yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi ci baatu askan wi la ca gën ci bopp xibaar yi musiba mbabakumba am ca hôpital Magatte Lô ba na ca Linguère ñeenti liir ñoo fa lakk ñeenti ña ñàkk nañ seen bakkan ñaar ña ña ngi leen di sooy ci jamono ji foofee ca Linguère daa ngi ci dégg leeral yeeg eh, Doudou Thiane eh, coowal suuf jib na ca eh, Mbour jëm ci tamit li nga xamante ne gannaaw coowal suuf googule askan wa joxoñ baaraamu tuuma meeru gox ba di Pape Pape Songe eh, Diouf ne moom bëgg a saax-saaxe suuf sa ci anam yu dëppoowul ak yoon eh, maire gox ba moom we dina tuuma yooyu le moom mair bu Ngekoox daa ngeen ko teewlu ci eh, xibaar yi grève bu ñaxtu transporteurs yi yëngu ci wàllu hydrocarbure gaare seen woto ni ki démb ay fan a ngi nii daanaka bankoon seen loxo essence ñàkkoon lool ci réew mi loole nag juróon jafe-jafe ba tax na ñu bëri ci ñoom ne daañu weer seen grève bu ñaxtu Cheikh Diop njiital CNTS FC ne grève ba jeex na nañu delluwaat ci seen bërëbu liggéeyukaay daa ngeen ci dégg leeral yi ci biir xibaar yi dañ ci toftal ñaareelu xaaju xibaar yi lu yéene kaay xëye tey ak euh, Omar Bun Xatab Gueye mbokki bu nees ki seema dikk ak yéen ci àttalum xibaar yi dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi ñu fa yéene ko door rek eh, Linguère hôpital eh, Magatte Lô Gaffane yeewoo tiis eh, tey jii ci suba teel gi ñeenti liir ñoo fa faatu ci lakk goo xamante ne am na ci googu lépp hôpital ca pédiatrie ba lakk googee sax juróom-benn liir ñoom ñoo ca jotoon loru ñeent ña nag ñoo ñàkk seen bakkan am ñi ci ñaar ñoo xamante ne ñu ngi leen di sooy ci jamono ji foofee ca hôpital Magatte Lô ca en direct ca Linguère dañ ci teewlu leer leeral yi tukkee ci Doudou Thiane tey fii ci hôpital euh, Magatte Lô jéey doy waar moo fi am ndax euh, ñeenti liir yoo xam ne ñi ngi woon ci service néonatologie euh, nga xam ne foofu la ñuy denc xale yi nga xam ne matuñu ñoom nag ñoom lañ fekk ñu lakk ba jeex tàkk li ko waral rek mooy court-circuit lañ wax ne moom moo am ci service boobu nga xam ne mooy service pédiatrie juróom-benn liir nag ñoo fa nekkoon waaye ñeenti ñoom ño jot a ñàkk seen bakkan am na ñaar ñoo xam ne fi mu nii daanaka sonn lool ba fi mu nii sax Euh, ñu ngi leen di saytu seen wér-gu-yaram mbir moom nag euh, indi na jàqare bu baax ci hôpital euh, Magatte Lô ndax ci suma ba léegi nag waajuru xale yooyu nag ña nga fa préfet bu département de Linguère ñëwoon na fa également sapeur pompier tamit ñëwoon nañ fa waaye sapeur pompier ñoom bi leen wooyee balaa yi ñëw sax fekk na ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci hôpital bi fay lakk gi ñoom nag bi ñëwee daal dinañ def li nga xam ne moom mooy seddalaat béréb boobu nga xam ne foofu lañ doon denc xale yooyu tardé. mangoog euh, mu doonoon làkk gu méttee métti ca hôpital euh, Magatte Lô ne ca Linguère juróom-benn euh, liir ñoo ca lakk ñeenti ña mujjee nañu ñàkk seen bakkan ñaar ña ca des ñu ngi leen di jéem a sauvé ci googule hopital dañ ci dikkaat ak suñu natango Euh, Doudou Thiagne ma ñu fa euh, teewal euh, lu waaju ci wàllu démbek dikki bi xaw naa sooxe lool dem démbek tey ndax ñàkkum essence ci station yi askan wi am ci jafe-jafe borom woto yi naka noonu rawatina boroom moto yi te defal nañu ab diir ngir mun a am essence loole nag doon lu mun a xajamal koom-koomu réew mi dañ ciy teewlu reportage yu yaay Adama Diallo. ñàkkum essence bi si dëkk bi jur na jafe-jafe bu rëy si way jëfandikoo yi. ñàkkum essence bi doon na loo xamante ni lu bette la nag vraiment bett nañu te euh, c'est pas normal quoi mais ñi koy def aussi duñ leen ŋàññi duñ leen euh, duñ leen condamné ndax je pense que si seen ay droit lañ nekk. faj loolu noonu rapidement te xam ni essence daal warul ñàkk quoi warul ñàkk vraiment nécessité la. d'abord mu nekk loo xam ne nii c'est une situation que nous déplorons ñu tout ah parce que euh, mënuñu quitter démb sur un conseil présidentiel avec la jeunesse yaa été tenu le président tey ñu xëy y une grève de lubrifiant. et de 72 heures et imaginez de d'ici 72 heures li nga xamante ni moo war a xew si réew mi amuñu essence te réew ku wax réew xam ne essence a koy dogal donc tey jii daa daal na bu suba ko ñuy taxaw di xaar ñun sunu essence suñu pétrole tey fii si réew mi tey ji ñu ne am nañ gaz on peut pas tey jii nii ñu am un manque crucial de de de d' essence comme ça nit ñi mënuñu circuler vaquer à la préoccupation et disons que c' est un pays qui va à fast track en mode fast track c'est c'est inadmissible. ñàkk essence bi tax na ba liggéey yu bëri taxaw na jamono ji. yaa dégg am na ñi nga xamante ne cag-cag bi la ñuy liggéeyee yaa ngi dégg seen liggéey lépp lépp lépp a ngi taxaw comprendre man mi di wax ak yow commerçant la sama mbuus a ngi nii ma teg xëy jënd ji bagage war a boobu ba léegi mënoo yóbbu sa bagage. yàkkal nañu bu baax kay parce man depuis 11 heures maa ngi fii boobu ba léegi dem naa julli juma fële ñëwaat ba léegi maa ngi rangaat te waa ji nee na duñu maa ngi yor ñaari commande yu ma war a yaa dégg bidon yeeg ñi dee ngi pan essence si oto yi mboto yi yëpp a ngi pan essence si àll bi fii ku fii ñëw da ngay pousse yaa ngi dégg avec sa ñu ne pays pays de l'émergence wala ñu ne carrément essence bi dëkk bi avancé na. ndoxteelum ñàkkub essence bi am na njeexi njeexital bu baax ci dawalkat yi ñi yaakaar essence amaat gaaw balaa week bi di jeex. ma ngoog ba léegi coow laa ngi ne coppoy ci coowal essence googule liggéeykat yi xëy banque seen loxo rawatina chauffeur bootu ci kuréel googee nga xamante ne ñoom ñooy dawal ñoo yëngu ci wàllum woto yi yëb essence conducteur d'hydrocarbure ci diggante Dakar ak Kédougou ñoom jot nañoo métitlu doxalinu Cheikh Diop ndiital CNTS FC mi ñu ne kenn yebalu ko amul lenn loo xamante ne daañ ko xaar ci moom ne xel xalaatul ñu dakkal seen googule grève bu ñaxtu nañ ko ca Kédougou gañu toll euh, dañ ci teewlu ñenn ci ñoom àddunañ ci micro Soli Bourama Dabo. 72 heures lañ lañ décrété woon renouvelable mu commencé mercredi tey la vendredi te kon ça veut dire tey ji à partir de minuit la waroon jeex mais dañoo gis ni liñ ci sàkk woon yëpp gisuñu ko ci. te ñoom ñi nga xam ne ñoom suñuy ndaw ñu yabal leen loon biñ ñëwee waxuñ ñu loo xam ne mën nañ koo dégg instant bi nii nag ñun ñu jël suñu responsabilité taxaw ne ñun duñu liggéey tant que loo xamante ni te ñu doon xeex la ñu avancé ko parce que taxawaay yi dafa yàgg ça fait plus de quinze ans vingt ans moo ngi nii à chaque fois bu ñu taxawee rek premier jour deuxième troisième jour dañ ñuy liggéeyloo te quelque après duñ gisaat dara. liggéey bi bépp risque bu ci am rek bu ci bu ci bu ci bu ci am rek wax nañ ñu ko formé nañ ci def nañ ci lépp parce que rien que dawal hydrocarbure rek dañ ñu naan ne ci bombe roulant nga ne à tout moment jëye mën na am. normalement hydrocarbure képp ku siy liggéey da war a gis sa bopp parce que ñi ñi ñi nga patron yi nga xamante ni ñoom ñoo moom oto ñoom ñi ngi gis seen bopp. chaque année dañuy wàcc ay oto yu bees oto yoo xam ne ay cent et quelques millions lañ koy jëndee ñun ñoo koy dawal bu ñu la waxee ñun suñuy saleer li ñuy fayeeku buñ la ko waxoon doo ko gëm loolu nag dañ ci jàgg di dund depuis suñuy su suñuy maam suñuy papa ba ñun ñu ñëw loolu dafa war a jeex parce que àdduna bi boo gisee lii sax stratégie la parce que Sénégal il faut nga yuuxu ñu dégg la parce que dañu yàgg di xeex te du ñu woo presse du ñu def dara kenn du ñu dégg fii nag ak nguuru Macky Sall gi faut nga yuuxu ñu dégg la Cheikh Diop la ñuy wax moom moo nekk suñu sandika depuis ñu doon hydrocarbure ba léegi Sénégal yëpp benn syndicat hydrocarbure moo fi am mooy Cheikh Diop Cheikh Diop heure bu ñu waxee ak moom ba mu yóbbu ñu ci grève daf ñuy trahir léegi nag on en est marre de cette trahison dañoo bëgg Cheikh jóob dem yoonam bañu ñun ñu dem uti feneen na dem na dem ñun doy nañ doy nañ sëg si Cheikh Diop waaw mangoog euh, Cheikh Diop na dem kooke di njiital CNTS FC moom jot na itamit euh, xayma ñetti fanu grève yoo xamante ne gaari nañu seen woto jàpp ne liñ ci doon séntu euh, gis nañ ko diisoo nañu ak kilifay ba tax na mun nañoo dakkalagum googule grève ñaxtu te delluwaat ci liggéey ba bépp liggéeykat ku jëfewul googule ndigal jàppal ne daan mun naa tegu ci sa ndodd dañ ci lu Cheikh Diop ci jokkoom ak Abdou Khoudos Diallo. grève bi xam nga dañ doon liggéey pour que patronat bi dellu si waat ci table de négociation ñu continuer waxtaan bi am nañ procès verbal pour ñu dellu si ci table de négociation ñu ngi naan am nañ lii am ñu la négocier guñu dara signé guñu dara li ñu am rek mooy patronat bi dafa quitté woon table de négociation ñu def grève soixante douze heures pour ñu dellu si dellu si nañu signé nañu seen retour signé nañu dañuy tàmbali négociation yi ñu war a continuer négociation yi délai bi préavis bi waxoon pour ñu grève jeex na mais am nañu comprendre a ñu signé convention mënoo grève ba ñu signé parce que convention liggéey bi dafay jël tuuti temps moo tax li ñu bëggoon mooy ñu dellu siwaat ci négociation yi am nañ loolu d'accord nañ pour ñëw négocier gu ñu dara signé gu ñu dara dinañ xar suñ tànk tubéy pour que négociation yi jaar ci yoon waaye grève bi moom jeex na ñi continuer nag li ma ci jaaxal ak li ma ci metti mooy ñi continuer ñu ngi ci illégalité parce que soixante-douze heures yi jeex na te dañoo pour que nit ñi bëgg a liggéey ñu leen di tere liggéey sama préoccupation tey mooy sama militant ñu leen di arrêté loolu dafa diis ci syndicat bi waaye nag dañu war a bàyyi li ñuy def ñu dem liggéeyi bàyyi syndicat bi mu continuer négocier pour indi leen li ñu war a indi waaye li ñuy wax naan indi nañ quinze mille indi nañ cinq mille indi wuñu dara négocier guñu dara signé guñu dara mbootaayu syndicat juddu na bees mbootaayu kuréelu syndicat yu bëri seen yéene mooy fexe ba indi doxalin gu bees ci wàllu syndicalisme rawatina taxawu liggéeykat yi ndaje mu yaa lañ doon a mal foofee ca CNTS FC authentique ma baxaw jong jiite yooyu la kuréel ne am na fi ñeenti syndicat yoo xamante ne nekk fi liggéeykat yi seen bopp dong lañ fi nekkal googu lépp ndaje bu waxtaan Moussa seen ma nga fa woon. daanaka fukki fan rek a des ñu amal la fête du travail di feetu premier mai loolu nag tax ba syndicat yi dajale seen xalaat créer cadre unitaire des centrales syndicales te li ko tax a jóg mooy ñoŋal xeexu intérêt travailleurs yi nga xamante ni dañuy jànkonteel ay jafe-jafe. fukki centrale ak ñaar pour le moment constitué légalement ñoo ñëw daje war a waxtaan war a bokk benn xalaat pour soppali li fi nekk lan moo fi nekk. moo di ñu ngi seetlu ne patrona bi gouvernement bi ak ñeent central syndical ñu bugg a rey mouvement syndical. bile cadre nag ëmb. fukk ak ñaari syndicat bokk na ci li ñuy naqarlu rek mooy ñeenti syndicat yoo xamante ni xaalis bu génn ñu luubal ko tax ba ñooñu di interpeller seen jëwriñ ministre du travail. ñeent central syndical seen nit rek ñoo fa nekk bàyyi fukki central syndical ak ñaar. ñeent central syndical yooyu at bu nekk ñu ngi leen jox 600 millions bàyyi yeneen central syndical yi lu gënoon rafet kay mooy 600 millions yi ñu xool central yi bu élection yu jub amee ci kaw ba ci suuf premier ba dernier ku nekk li nga yellool nga am ko. yile syndicaliste nag yëglu nañu dem bay wax ni sax dootuñu nangu ñu leen di rëddal ay limite ci dépôt cahier doléance yi ci feetu premier mai. ñu ngi dem ci premier mai fête du travail ren war na am. ñeent central syndical yi dem ci suuf ne comme que war na am ñun ñeent ñu fi ndekkere daal ñooy buur di buum mi na ngeen ñu jël yóbbu ñu ñu des yëpp ngeen bàyyi leen en rade te loolu yoon waxu ko ñu ne nag premier mai bi bu fekkee loolu la demee ñun du ñu incriminer kenn ku dul ministre du travail. ñaari syndicat yooyu nga xamante dañoo formé seen cadre unitaire central syndical ngir xeex ak ak yelleefu liggéeykat yi ñoom nag dootuñ nangu ñu leen di sacrifier ba tax bés yi di ñëw danañ leen gën a dégg. Eh, coowal suuf eh, jib na ca département bu Mbour foofee ca commune bu Ngekoox am ñu yëkkati seen kàddu jóg eh, ñaxtu joxoñ baaraamu tuuma maire bu Ngekoox ne dafa àkki moo suuf sa ci anam yu dépôt ak yoon dàqu ñu sax ba yóbbu ko fu mbaxana doone benn dañ ci teew lu teewlu Thierno Daaf. coowal suuf gu yëkkati coow lu bari. am na ci diiwaanu campement Ngekoox. dañu am benn problème mu litige Ngekoox. ñoom ñii ne ñoo suuf si. joxoñ nañu jaraafu dëkk ba nelu lu ji njaag moom mooy njaag ndax jaxase mélange bi yépp moom moo ko waral maire moo ñu war a atte maire moo ñu war a protéger maire moo war a veiller si suñu ay bien maire ñëw fekk li moom mu di ñu nappaaje di dëgg suñu kaw di ñu wan ne amul Sénégal ndax député la en même temps APR la bokk ñun nag dañ daan déet bi ñëwee wax ak Ali Ali nee na moo ko bindal at de vente dama ne man su may attaqué Pape Diouf attaqué wu ko ci suuf si dama ko attaqué ci at de vente bi nga xam ne moo ko defal moo ko defal Ali Guèye moo ko ko jox Ali Guèye conseil municipal la comme moom. ngir jotaat ci suuf si. ñoom ñiy naan ñoom moom suuf soosu. nee nañu tam daañu yóbbu maire bi ba fu mbaxane doone benn. maire moo ñuy protéger. maire moo war a veiller suñuy bien maire di ñu noot suufi ngekox yëpp bazardé na ko dama ne loti ba ñu toogee ba tey moom mu ngi fi depuis bi mu toogee ba tey musul def benn délibération ñaari délibération la def benn bi Idrissa sekk bi mu demee ci mburook soow la ko ko defal bi ci des waa kër Ibou Sakho buy def délibération du indi plan du indi sur physique kenn du xam nu mu demee dañuy toog rek ñu voté ko ñun dañu def appel appel baa ngi mayor mu ngi nii mu ngi nii le 18 le 18 septième mois 2006 la ñu defoon jugement bi Ousseynou deux jours après le 20 septième mois 2006 si la def appel bi appel baa ngi jugé guñ ko ba tey Pape Diouf jël terrain bi. Mbour Thierno Daf Walfa. mu ngoog euh, Daf euh, ci coow loolu le la ñu desandi ci wàllu suuf ca Ngekoox meeru gox ba la ñu joxoñ baaraamu tuuma weddina tuuma yooyu le na ñay ñaxtu ngir suuf soosu soosule amul benn kayit gu koy firndeel euh, bu ñu sukkandikoo ci Pape Songe Diouf bu Ngekoox ay kàddoom ci micro Thierno Daf diggante janvier 2006 Cheikh Fall dafa porté woon plainte Ousseynou Ndione ñu dem tribunal audience bi waroon nekk le 31 janvier 2006 ñu renvoyé ko du 14 février 2006 ñu defaat audience audience du 14 février ñëwaat déli ñu délibéré le 11 sept 2006 audience de délibération du 11 sept 2006 boobu prolongé le 18 sept 2006 ba ñu délibéré ce jour la ñu condamné Ousseynou Ndione à sursis à 25 000 amende léegi nag Cheikh Fall bu ay doomam doonee kër gi ñëw ne danoo bëgg doon na suñu kër doon na seen kër baay am ay kayit yu wër am audience bi nga xamante ne dem ngi nii ñoom ñu ne 2006 léegi ñaan nañu appel gisuma appel man ne leen indi leen ma appel bi sinon famille Cheikh Fall am nañu droit ak seen n'a pas demandé demande intérêt donc loolu daal fi ne ay nag jaay nañu diw am na am na am na ak demande yu demee noonu mais nañu ko indi mais li ma mën a wax daal ci loolu mooy tribunal condamné na ki nga xam ne mooy Ousseynou Niang nee na bàyyam moo ko joxoon terrain bi parce que daf ko tay la woon trente cinq mille francs man mu ngi ñëw fii loolu la mu wax ku nu tay la trente cinq mille nag nga ne yaa moom nga dem tribunal tribunal nee la moo moo fa dara ñu condamné la parce que le gars il n'a pas demandé demande intérêt loolu am naa yaakaar ne loolu vraiment ay waxu euh, ku daanu sareet la jëwrin di ab dëkkoo gu féete ca Kébémer foofe ca diwaanu Louga googu la dëkk nag askano fa yeewoo am jaaxle lool ndax mënatuñoo woote téléphone téléphone mënatu faa sonne ndax ñàkkum réseau ñu ngi laaj sax ndax Sénégal la ñu bokk ba ba léegi ndaw ña nag ne mënatuñoo dëkk ak googule jafe-jafe waral ñu amal ñaxtu ngir sàkku ci kilifa yi ñu gëstu leen dañ ci teewlu Omar Kayre digganteem ak Kébémer toll ci juróom-ñaari kilomètre boo duggee ci dëkk bi di jokkul jëwrin day mel ni bokkatoo ci àdduna bi li ko waral moo di réseau téléphonique yi benn baaxu ci dañu amul benn réseau bu baax Expresso bii ngeen gis mu nekk fii depuis ba mu fi nekkee ba léegi du benn njariñ bu mu ñu amal yeneen opérateurs yi normalu ñu parce que Orange amuñu ko fi Free amuñu ko fi Expresso moom la fi antenne am nekk ba pare baaxul ñun ndax dañ bokkul ci Sénégal wala ci commune boo xamante ne ni Diokoul polarisé na plus de 63 villages dëkk bi rek Diokoul kese li fi nekk mat na 3000 habitants. ñàkk internet di baneen jafe-jafe boo xamante ni réseau bu bon bi jur na ko. plus de 100 étudiants ñi ngi ñi ngi fi pour ñu mën a inscrire ils sont obligés d'aller jusqu'à Kébémer. ñi nga xam ne dañu leen euh, orienté ci UVS yi ñoom tamit mënuñu sax am accès internet. bay mën a def seen cours yi en ligne connexion c'est plus qu'une nécessité étudiants yi am nañ problème fii service transfert d'argent yi fi jaaroon yëpp fay nañ lu ko waral amuñu réseau ngañ jaxate mii ak ñooñom ñoo ngi woo association consommateurs yi ñu wax ci lii bu ñu déggee suñu kàddu nañ xam ne ñun tamit lii ñu metti nii ñoom war nañu mën a jàppale porter combat bi parce que ñun ay sénégalais lañ comme sénégalais yëpp ñoom ñi ñu ne dàquñu sax dem ci yoon bu fekkee opérateur yi nga xam ne ñoo ne ci seen dëkk boobu indiwuñu saafara ci jafe-jafe yi nga xam ne ñoo ngi koy dund Oumar Kayre Louga Walfadjri ñu ngi koy jaajëfal Omar Kayre Senelec ak ay partenaire am yéggee nañu seen ndimbal askan wa yeewoo ca jaga ñaaw ca Diamniadio euh, foofee ca département bu Rufisque ñaajo googe moo daloo woon ndaje ma ci teewaayu ñaa jiite gox ya ne ndimbal googe jëm ci wàllu dund ak fourniture yegg si na ci waxtoom dañ ci teewlu Mamou Diaby Gassama Senelec ak Vinci Énergie dañoo daal di jiite benn xew-xew bu mag ba nga xamante ne jotoon nañ ko amal ni ca jam ñaaco liñ doon def rek moo di ne séddale ay lekk lu ëpp ñaari téeméer njaboot yi yeewoo ca jam ñaaco ak it lu ëpp téeméeri njaboot yi nekk ca Rufisque naka noonu sax jot nañ joxe tamit ay fourniture scolaire jaraaf yi nekk ca diwaan boobu li nag mbégte ak kontante rekk lañ am ci bile xew-xew. gis nañu effort ci Senelec di def partout dans les quartiers di gërëm di sant bu baax nag Vinci et son équipe ci cérémonie bi mu organisé tey pour jox euh, population yi don bi nga xam ni moom lañu war ko jox leen wax ni ndimbal la bu baax a baax surtout ci weer wi ñu nekk ki jiite Vinci Énergie Afrique de l'Ouest ak it directeur général bu Senelec lu ñu fas yéene def rek moo di ne boole seeni doole ngir mën a jàppale njaboot ya nga xamante ne seen loxo dotul seen ginnaaw. Je profite de ces quelques mots pour remercier la direction générale de Senelec de nous avoir euh, fait confiance. te Senelec lu ko nit ñi doon xaar toujours ak fu ñu ko daan dégg toujours mooy paan am na courant amul ñu ñu wax moom. léegi nag yaakaar naa ne depuis bu président Macky Sall ñëwee ba léegi gis nañ beneen Senelec monsieur le président du conseil départemental wax na ko non seulement léegi dépasé nañ joxe courant mais ñu ngi jéem nag comme nu ñu ko président santé gën a ci teewaayu kilifa ya nga xamante ne ñoom ñooy yeew ca Rufisque ay kilifa diine ay kilifa aada ak cosaan ak it ay chef de village bu département seen lekk ak Vinci Énergie nee nañu taxaw nañ temm ngir mën a jàppale askan wi ba kenn ku nekk mën a jot lii di courant askan wi bëgg a dem taxut mun a dem ndax embouteillage yu ñuy jot nemmeeku ci ndakaaru rawatina ci weeru koor bi saay bu waxtu dog euh, jégesee askan wu bëri dañuy faf sax di tendefal ci arrêt yi ndax ñàkkum woto woto yooyu sax euh, dem beeg dikk bi xaw a euh, jafe ci ñoom dañ ci teewlu reportage yu Pathé Mbengue embouteillage yi fii ci biir ndakaaru nekk mbir boo xamee ne que mu ngi wëy di euh, sonal askan wi ñii di automobiliste yi ñoom kenn demul ñu des rawatina ci weeru koor gi nga xamee ne euh, ku ne day njëkkante ngir mën a dogee sa kër chauffeur yi ak client yi di wuti pexe ngir waxtu dog fekk la sa kër. day xaw a jafe mais da nga bàyyi xel rek quoi waaw da nga siy bàyyi xel bu baax. ah non day am nag day am nag mais souvent parfois da ngay comprendre ak yow tamit waaw day cas mën nga ko mën nga ko bàyyi mu dem nga xool ku bu la arrangé rek. dañuy liggéey faw nga jël taxi euh, mu ànd ak sa liggéey jëndi bagage ñëwaat ñu ngi ànd ak chauffeur yi ñu ngi koy gérer ah ñi ngi waxtaan. yenn si askan wi ñu jot a dajal ci embouteillage yi di ñu xamal njeexital yi embouteillage yi di am ci seen dundin ca biir kër ya. waaw euh, lii dañ koy naqarlu rek mais ñu ngi ñaan gouvernement bi mën ci def euh, loo xamante ne mooy li gën quoi parce que lii moom jaaduwul surtout ak temps koor gi nii. ñii ngay bëgg a wàcc pour teel a dem egg sa kër xam nga mën a ndog wax sa famille mais du mën a egg à temps. Euh, le circulation bi moom mu ngi nii ñëpp ci teg seen kii mais le temps nga yegg léeg nga tarde léeg tamit doo tarde mais am nañ aussi yàlla ñoo xam ne ne que baax leen leen balaa ngaa yegg si ngay fekk yëpp pare. donc ñaan gouvernement bi rek mu dimbali si circulation bi te defar tali. embouteillage yi ne xuus ci mbeddu ndakaaru yi rawatina ci weeru kor yu ñu nekk li lay nekk situation boo xamee ne que ñu bëri ci askan wi ñu ngi koy ñaawlu bu ñenn di dogee ci mbedd mi ñeneen a ngi wuti pexe ngir waxtu dog fekk leen ci seeni kër. mangoog am ndox ma ñu ndogoo sax ca ñaari tali doon na lu leen jafe lool ba ba tey robinet ya xelle gu ñu soxna ya xaaju guddi lañ jóg ngir dox ay kilomètres kilomètres ngir mun a wuti ndox wala boog taataan lenn ci robinet ya dañ ci teewlu reportage yu euh, Toussaint Maurice Senghor. ñàkkum ndox moo ngi gën di law fii ci ñaari tali rawatina ci quartier Golbert Diagne askan bi fay yeewoo nag ñoo ngi dund li ni mel saay bu weeru koor jubbi. même kooru daaw. daloon nañ koor daawaati jéeg daloon nañu ñu dëkk chaque koor nga dëkk si man koor daawaati jéeg dama bàyyi woon sama liggéey dugg ko ñoo koñ leen tali fépp maa géré oto ndox yi di dimbali waa SDE man mii damay jaay ndox damay jaay ndox waa koñ bi yëpp xam na ne damay jaay ndox mais amatuma dara lu may jaay jigéen ñi ñoom dañu daal di xoole ba bër sëkk ngir mun a am ndox bu ñu jëfandikoo ñun mën naa ne presque deux mois ngi ba dugg troisième mois amuñu ndox il faut ñuy yeewu di veiller da ngay xool di veiller huit heures ba deux heures du matin lu mat ñetti weer a ngi nii ñu ngi bëgg a dugg suñu ñeenti weer mënuñoo fexe ba ndox mi normal biir ñaata laa dugg man man fa am ñaar sooy ndox pour toog sama ndogu. waajur bi bile moom lu muy ñaawlu rek bokk na ci njëg yi nga xam ne dañuy yokk te gisuñu benn ndox. non ça fait bientôt trois mois nit yi amuñu ndox te facture yi changé wul amul dara lu changé li ngay fay ngay fay bu yokkuwul du wàññeeku ñeenti weer a ngi nii nag ndox amul fii ci ñaari tali askan wi dañuy sax daal di dem rooti ci yeneen dëkkuwaay loolee tax rekk ñoo ngi woo nguuru senegaal mu daal di si indi ay saafara. Ngog yëgsi nañu ci njeextalu xibaaru digg bëccëg gi dañ ci dalal Omar bun Xataab Gueye ci xibaaru yéenekaay yi. mbokk yi.